jëf ya saar bés booba nag fitna ju metti dal na ci mbooloom ñi gëm ñi nekk yerusalem ba ñépp ñi mooy ndaw ya tasaaroo ci diiwaanu yude ak samari ay nit ñu ragal yàlla fab etiyen jébbal ko borom bi di ko jooy bu wér waaye naka sool mu ngay tas mbooloom ñi gëm di tàbbi ci kër ya tey jàpp góor ak jigéen di leen tëj kaso ñi tasaaroo nag dem fu nekk di fa xamle xabaar bu baax bu kàddu yàlla naka filip mu dem ca benn dëkk ca samari di leen yégal kirist bi ko mbooloo mi déggee te gis kéemaan yi muy def ñu bokk benn xalaat fekk ko ci li muy wax ndaxte ay rab yu bon bàyyi nañu nit ñu bari ñañu jàppoon di yuuxu ca kaw te ñu bari ñu laggi ak ñu la fañ daldi wér noonu mbég mu réy tàbbi ca dëkk ba amoon na nag nit ku tudd Simon di luxuskat bu yàgg ca dëkk ba te daan yéem waa Samari gépp ci naan aji màgg la kon ñépp mag ak ndaw taq ci moom ne ki mooy jaasi aji kàttan ji ñu taq ci moom ndax li mu leen yàgg a waar ci ay luxus waaye bi ñu gëmee xabaar bu baax bi Filip yégle jëm ci nguuru yàlla ak turu yéesu Kirist góor ak jigéen daldi nangu ñu sóob leen ci ndox Simon sax gëm ñu soob ko ci ndox muy wéy nag ci topp filip di waaru ci kéemaan yi ak firnde yu màgg yi am bi nga xamee ne ndaw yi nekk yerusalem yéeg nañu ne waa samari nangu nañu kàddu yàlla ñu yéene fa piyeer ak yowaana ñu dem fa nag ñaanal leen ngir ñu jot xel mu sell mi ndaxte wàccegul ci kenn ci ñoom waaye sóoboon nañu leen rekk ci ndox ci turu borom bi yéesu noonu piyeer ak yowaana teg leen loxo ñu jot xel mu sell mi bi simon gisee nag ne yàlla may na xel mi jaadale ko ci loxooy ndaw ya mu indi leen xaalis ne leen may leen ma sañ-sañ boobu ba ku ma teg samay loxo nga jot xel mu sell mi waaye piyeer ne ko asarul ak sa xaalis yow mi yaakaar ni man ngaa jënd mayu yàlla ak xaalis amuloo benn wàll mbaab cër ci lii ndaxte sa xol laabul ci kanamu yàlla rëccul nag sa coxor te ñaan borom bi mu bàll sa xalaatu xool su ma nee am ndaxte gis naa ne sóobu nga ci lu wex xat ci kanamu yàlla te bàkkaar noot na la simon nag ne leen ñaanal leen ma ci borom bi ngir mu feggal ma li ngeen wax noonu bi ñu seedalee yàlla te wax ci kàddoom ñu dellu yerusalem di xamle xabaar bu baax bi ci dëkk yu bari yu waa samari naka noonu benn malaakaam borom bi ne filip jógal te jublu misira jaar ci yoon wi jóge yerusalem jëm gasa di mànding filip jóg dem noonu mu gis fa nitu etiopi ku yoom di jaraaf ju mag ci kandaas buur bu jigéen bu etiopi te di ko watul xaalisam bépp fekk mu ñëwoon yerusalem ngir màggal si yàlla bay dellu mu toog ci witiiram di jàng téereb yonti yàlla esayi xel mi nag ne filip dabal watir wale noonu filip daw si mu dégg waayi etiopi ja di jàng téereb yonti yàlla yi mu laaj ko ndax xam nga li ngay jàng mu tontu ko ne nu ma ko mën a xame suma ko kenn firilul mu woo filip nag mu yéeg toog ak moom fekk aay yi la doon jàng ci mbind mi yóbbu nañu ko ni xar mu ñuy rend ji ni mburtu mu luu ci kanamu watkat mu ne cell ci toroxteem nangu nañu dëkkam ñi mu tollool jamono ku ci xalaat lii jële nañu bakkanam ci àddina jaraaf ja nag ne filip maa ngi lay laaj ci mbirum kan la yonent bi jëmale wax ji ndax mbirum boppam lay wax mbaa mu keneen noonu filip tàmbali ci aaya yooyu xamal ko xabaar bu baax bi ci mbirum yeesu bi ñu jaar ci yoon wi ñu agsi ci ndox jaraaf ja ne ko ndox a ngi nii ana lu tere nga soob ma ci mu santaane nag ñu taxawal watiir wa filip ak jaraaf ja wàcc ñoom ñaar ci biir ndox ma mu soob ko ca ba noppi ñu génn ca ndox ma te ca saasa xelu borom bi fëkk filip ba jaraaf ja gisatu ko waaye mu toppaat yoonam ànd ak mbég filip moom teeri dëkku asot muy jaar ci dëkk yépp di fa xamle xabaar bu baax bi ba kera muy ñëw dëkku sesaare